بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ginnaaw loolu ba tey ñu ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala toll ci suratu nisa li jël tey ñetti aaya aaya 19 aaya 20 ak aaya 21 ñetti aaya yi sunu borom mu ngi ci jàngal juróom benn mbir bi ci njëkk mooy ibtaalu qaanuunul jaahiliya alqaaimi ala anna al ibnu zawj yarisu imraata abi tey bokk na ci aaya yi ñuy jàng li ñu yàlla di njëkk a dindil li yàlla di njëkk a weddi mooy ay xew-xew ay luwaa yi mu fi fekkoon jaahiliya yi instauré ko ci dëkk bi ci àddina bi mooy nit bu faatoo doomam doomu jëkkëram day doon jabaram loolu islaam fi la ko fekk gis ngeen mu nekk lu bon lislaam daal di koy dindi nit bu fekkee baayam dafa faatu sa jabari baay nga doon na waaw loolu lislaam fekk na ko fi ceddo yi di ko doxal islaam dindi ko ndono gi nag nekk ñaar benn nga donn ko mu nekk sa jabar beneen bi nga bañ koo donn teg ko foofu rek ba nga gis góor gu am xaalis ñoom mu jox la xaalis nga jox ko ndaw su mu yóbbu mooy donn nga ko parce que yaa ko moom loolu islaam fekk ko fi muy jikko ceddo bu bona bona bon lislaam daal di ko fi dégager ba mu set ñaareel bi mooy xurmatul adl min ajli l iqtidaai bil mahri wa gayrihi bokk na ci li ñuy jàng tey encore loo xam ne lislaam fekk na ko fi dàq ko dindi ko am ñu bàyyi am ñu bañ ba fii ñu toog mooy takk jigéen jox ko can dem ba ngeen am ay problème nga koy xatal ci kër gi di ko bund xotaat di ko métit di ko métital pour mu ñaan la baat su la ñaanee baat nga ni ko fay ma li ma la joxoon mu fay la nga doog koo fase loolu xam ngeen ne ba léegi mi ngi am ci àddina bi ba léegi am na ñu tuddee seen bopp ay jullit ñu nekk ci seeni kër nekk ci seeni soxna di leen xatal di leen tànc di leen bunduxataal di leen noggatu di leen def yu metti yoo xam ne nit sax du ko def rab waxuma laa nga koy def ab jullit boo xam ne dafa bàyyi woon ñëpp topp la dara desul léegi indi nga ko sëy nga ak moom mu ngi sa biir kër fase woo ko nga bàyyi ko di ko toroxal pour lan pour bu sonnee rek wala ay mbokkam sonn mais léegi laajal li nga joxe woon ñu jox la ko laajal li nga ci defoon ba léegi da nga koy dégg léegi laajal li nga def joxe woon delloo la suñ la laajee nga daal di jël sa xaalis daal di libéré ndaw si mbokk jullit yi loolu bokk na ci li ñuy jàng tey lislaam weddi ko dàq ko sant nit ñi nañ ko bàyyi ñetteel mooy at targhib fi sabr bokk nañu li ñuy jàng tey ay di ñu xemmeem loo pour ñuy muñ muñ jullit day muñ muñ ngir yàlla muñ ci xeetu façon muñ yëpp ñett yëpp nga muñ jullit du jàmbat ndax natt moom du jóg ci kaw suuf problème du fi mus a jóg bis boo xëyee yàlla dina indi lenn teg sa kanam pour lan dafa saako ci yow nga muñ kon danañ jàng tey mbokk jullit yi ay yi nekk sunu kanam pour ñuy muñ xam ne kat lool lañ ñu fi indee ci kaw suuf pour ñu muñ mbokk ci jaamu yàlla yi pour yàlla fay ñu ñeenteel mooy jawaazu axzul fidia min azawj bil mahri aw aksar aw aqal in hiya atat bi faahisa zahira la sakka fiha ka zina awi nusuuz am na lenn lu fi lislaam fekkoon aussi nit ñi di ko def mu daganal ko mooy fekk fi nit léeg-léeg mu laaj jabaram alal ji mu ko joxoon ne ko danga may fay bu ko jabar ji fayee mu daal di jël alal ji waaye loolu kañ la la ko islaam sant mooy bu la leeree na sa jabar def na loo xam ne dafa ne weñ ci dëkk bi jaaduwut ñëpp teg nañ ci bët mu leer la ne leer yàlla ne lii moom man ak moom mëntuñoo continuer lu mel ne njaaloo ku mu leer na sa jabar dafa dem ci beneen góor sëy ak moom wala nekk ak moom wala njaaloo ak moom ak yu demee noonu loolu moom bu la neexee can bi nga ko laajoon nga laaj ko ko ndax ndaw si moom moo def loolu gaa yi naan plan la mu bokk ndaw si moo def bu ne weñ ci dëkk bi moo la fi bàyyi ngay borom këram mu dem séq ko beneen góor kon kooku daganal na la can bi nga ko joxoon wala sax lu ko ëpp wala lu ko gën a néew bu fekkee dafa indi bàkkaar bu bon boobu ñu laan njaaloo wala lu mel ni moom juróomeel mooy jawaazu xilaa'ul mahri faqad yablughu lqintaar gayra anna taysir fihi aksar lil baraka am na beneen bu ñu fi fekkoon ba léegi mu ngi fi waaye boobu de lislaam dàq ko mën na dagan waaye nag bu gënee yomb moo gën mooy lan can bu cher can léegi nga gis benn waaye bu may un million nit ñi yóbbu ko nit ñi yóbbu ko ci télé yeeg rajo yi daan diw un million la maye lu ci nekk dara nekku ci bépp waay bu am alal nga waxtaan ak jigéen nga bëgg ko takk waaw mu ne la waaw loo may jox nga ni ko un million nga dem indi un million bi joxe dara nekku ci waaye nag gayra annal taysir fii aksar min baraka waaye can bi nag bu gënoon mën a yomb sëy boobu moo ëpp baraka bu ñu fàtte ne can mën na bëri mën na néew ndax ci alquran tudde na ko xintaar xintaar mooy lan alal ju ne kañ bu leen fàtte ci Moussa keroog ba ko soxyi bu bëggee may jabar lan la ko wax ak may sàmmaloo ñaata at juróom-ñett boo ko mottalee fukk famille indik tey boo doon liggéey ngay sàmm weer bu dee ñu fay la cent mille juróom-ñetti at ñaata la di cent mille juróom-ñetti at cent mille juróom-ñetti at la sàmm waaw alal yooyu ñaata la léegi nag bu fekkente ne fukki at la cent mille ñaata la kon kenn gis bu kenn gisati ci ñun bu kenn gisati ci ñun kuy càkk jigéen jox ko alal nga ci yéemu c'est normal fal yunfiq zu saatin min saati yi ku am xam nga kan mooy problème koo xam ne amul lu mu ndékkee naan day joxe cent mille day joxe un million loolu mooy problème puisque fépp fooy takk soxna nga dem joxe fa un million ñu ñëw suba gis ngeen di ndékkee soom bi bu amul soow wala ngeen koy reeree yow nit ñi dinañ la yett kon kenn ku nekk kem sa capacité di nga toll moo tax alxuraan sax loolu la wax fal yunfiq zu saatin min saati yi ku nekk ni nga mëne defeel noonu kii dafa am mën naa maye kër mën naa maye oto ba pare teg ci un million teg ci teg ci teg ci teg ci kooku loolu la mën kii nag moom mënul lu cinquante mille ak kilo guro ak benn tàngal mant na yóbbu loolu joxe ko waaye bu jéemee diir mbagg kële musiba am kële it bu mu diir mbagg kii ci suuf ndax keroog ba Abdourahman takkee soxna ñëw nekk borom alal bëgg a mel ne gaa yend na ko aw lim wala aw bichar Abdourahman mu ne ah mu ne ko céetalal céetalal doon te ne gàtt ngay rey dama nga jël gàtt nga rey ko parce que yonent xam na ne Abdourahman dafa am comme ku am ak ku amul du ñu tolloo li ñaar yëpp nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sëy bi ci ëpp barke mooy di can bi néew juróom benneel mbokk jullit yi mooy wujubu muraatul uhud wal wafaau biha tomb bu am importance bu ci mujj mooy waru gar la sàmm kóllëre jullit day sàmm kóllëre jullit day am kóllëre jullit day wattu kóllëre lépp loo wax ak sa mbokk jullit lépp lu ngeen wéet waxante ko sàmmal lool bu fi nekkee bu fi nekkul buy dund bu deewee ndax loolu kat ak respecté ko ba mu mat loolu dafa bokk ci alquran li muy soññ nit ñi ñu mel ko xam ngeen ne jikko bii mooy lan sàmm kóllëre wattu li nga defanteeg nit li nga waxanteeg moom loolu dafa jeex jëkkër ak jabar ñoom ñaar kan moo ci gën a rëy kan moo leen gën a rëy ñoom ñaar lu ñu waxante lu ñu siñeente nga fekk koo xam ne amul borom kër nga gis koo xam ne amul jëkkër yéen ñaar ngeen di dugg di génn di dugg di génn di wër di wax di wax di wax di wax yow ku góor gi ngay wax di wax ba ku jigéen ki bàyyi ñam ah ñu takk diggante bi nga yóbbu ko di ko toroxal moom ku jigéen ki mu gis nga romb buntu kër yëpp yenn saa yi sa benn waaye ne la damay damay ñaari jabar de dan ko fan mu ne la bawal nga ne ko bawal wala fii sax ci biir Dakaaru ñu ne pla ñu ne ñu ngi takkee fule ngeen dugg oto oto bi di daw di daw di daw ba tëli bi jeex ngeen topp suuf si 52 kilomètres nga ne ko waaye sax waaye yow yow yow foo gisee kii yow yow daal mën nga wër bi xoolal waa ji li mu romb rek te foofu foofu mën ngeen dem noonu ñaani mu sori trop foofu la waa ji doon dem sax samedi du tayal sonn même bu guddee waay dinaa ñëw de damaa guddee rek dinaa ñëw de léegi nag yow nga takk ana kóllëre googu doo ko sàmm noonu nga doon muñooy coono yooyu di langar-langari ci suuf si di lëndëm gi yenn saa yi sax ñu ne la fii wóorul te agresseur yi nga daan man dañ ma ñeme waaye waaye di di di di di mbaw mbawul fekk yoo xam nga ne bu doon sa jabar la sax yow heure bi doo fa dem waaye ki nga bëgg rek moo fa nekk moo tax nga langar langari dem kon signature yooyu pacte yooyu la ñu yàlla di fàttali ñun nag lépp ci ñun ni ñuy labate soxna moo dàq nu ñuy séyee ni ñuy labate moo dàq nu ñuy séyee kuy labat fi mu nekk nii saa yu la ndaw si ne foo nekk nga ne ko maa ngi ni wàcce ko mu ne boo wàccee indil ma dibi boo wàccee nooy def boo wàccee nooy def danga yóbbu dibi bi ah bu la ne dama bëgg cinq mille boo wàccee nooy def indaale cinq mille bu la ne damaa bëgg portable sama portable bi àqu na nga indi bu la ne damaa bëgg carte mémoire cinquante giga nga dem wëri bu la ne woon biddéew laa bëgg sax nga ne ko xaaral suba may àbb eseel yéeg ci asamaan si indi léegi nag yow bi nga takkee ndaw si ne la foo nekk nga ne ko mu ne jaaral bi yosu doore waaye waaw waaye danga yobaale dama nga jëndi mburu fuur ba ah gis nga commencé nga bu la nee yàpp dibi nga ne ko dibi yow lu ko fuuy yow lu tabaski lekkoo woon yàpp tabaski nga commencé di indi ay ñol-ñol te xam nga ne bi njëkk ba lu ñu la wax rek nga def ko boo joxee cinq mille sax doo laaj yoo ci voilà da ngay ñëw génne cinq mille nañ ataaya ndaw si jënd ñëw ne la nga ne ah non non non non te amoo pas suba grave grave grave léegi nag boo takkee rek di xeex ci ay wéccit gis naa ay gars yoo xam ne dañuy xeex ci wéccit gis naa benn gars yoo xam ne ñu amee soxna soxna si war a xëy di dem marché di togg day woo beneen jigéen ne ko kaay doogu ñëw mu ne lan la ñuy togg ceeb boobu ne ko da ngay jënd diwlin jënd ceeb bu dee ñaata mu ne 2 kilos 2 kilos de xanaa 300 la mu bind 300 diwlin da ko diwlin xanaa ne 250 mu bind jën mu ne jën mun nga jënd 700 mu bind 700 noonu lay toppee dugub bi carotte nag mu bind carotte de mun nga jënd xanaa 200 wala 100 francs mu bind noonu la toppee dugub bi ba mu yeex teg teg teg bu ko calculer mu nekk ay 3000 mooy jël 3000 jox jabar ko defal benn bis mu ne daa bëgg suufu kànje boo keneen de kooku ñëw mu ne ko suufu kànje ni ñu koy toggee kooku wax ko mu bind détail yëpp ba mu jeex mu jël sox xaalis bi jox soxna si soxna si dem togg soxna si di togg affaire bi métti ko soxna si jël feuille bi xool gis ndugg bi yëpp gisul xorom soxna si daal di jël xorom bi ci kër gi yëpp dem def ko ci mbalit mi daal di togg daal di togg suufu kànje ba pare daal di teg waa ji daal ne am na gisul xorom mu ne yow dëgg ma yëpp yow ceeb bi amul xorom ndaw si daal di indi fooy bi ne ko liiral bi ngay bind bindoo woon xorom de amul xorom nga def ma ci xorom sëy boobu noonu la tase li ma leen di wax ni ndaw si moo ma ko nettali yàlla naa déggee noonu waxu yéen yàlla naa déggee noonu yonente bi ma jàkkaarloo muy wax ndaw si moo taxaw di ma nettali lan moo tas sëy bi fekk dama ko doon wax pour mu dellu ma koy waar pour mu dellu ma wax ba sonn mu ne waaw léegi nag may ma nag ma wax ma nit mu daan may tegal lii ma ni xoolal góor bu mel nii est-ce que mën na sëy kii di wax ne moom borom su diine la ah ngay woo keneen kaay ceeb lu muy jar ñu ne la 150 nga bind diwlin lu muy jar sa jabar mi ngi toog yow kay jox ko mu dem jëndi bu ñaata sax nga ne ko jox ma sama faj waaye ba mu bindee liste def page bi dafa ci xorom ndaw si toog góor dem këppi xorom bi ci kër gi xam na ne bu gisul xorom day dem wuri xorom ndaw si këpp xorom bi ba pare daal di togg ceeb bu amul xorom ñëw mu ñam amul xorom mu ne ko ana xorom bi mu ne ko fooy baa ngi nii dafa ci xorom xorom ñaata lay jar bokk yi juróomi dërëm di tase juróomi dërëm ba léegi nii ndaw si mu ngi tumuranke te am na ñetti doom xaw ma ñaari doom ah loolu loolu jullit du ko def mbokk jullit yi sëy dafa foo dinañ gis léegi aaya yi ñi ci yàlla di waxee sëy du lu ñuy fowee sëy du lu ñuy làmbaatu moo tax boo ciy dugg bu yee ba nga xam ne dee moo la ci war a génne kenn niñ ko yombalee nii ah nga xam ne ku mu neex takk benn jigéen suba nga ne ko demal nga ñibbi indiwaat keneen da ngay gis benn waay boo xam ne da ko day sol di simmi parce que lu tax ñàkk a ragal yàlla gi ci denc so parce que am naa sama xaalis soo demee keneen ñëwaat ndaw si tamit am naa sama rafetaay de boo ma fasee du ma lam gaa ñaa ngi nii taxaw yooyu du diine sëy yàlla moo ko santaane léegi léegi incha allah ay seconde dinañ gis aaya bi yàlla di wax diggante góor ak jigéen bi sëy kon mbokk yi ci kattal yaakaar naa ne lii buñ ko tënkee juróom benn mbir yi moom moo aju tey ci sunu dars ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu dëgëral sunu làmmiñ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعد ما آتيتموهن لتذهبوا ببعد ما آتيتموهن إلا أن يأتي إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إهداهن قنطارا وآتيتم إهداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أقضى بعضكم إلى بعد وأخذن منكم ميثاقا وأخذن منكم ميثاقا غليظا إخوة الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها borom bi moo wooteeti lii dafa bokk ci nidaatu rahman soo demee ci aboubacar jabir aljazari benn téere bu mu tudd nidaatu rahman woote yi yàlla woo ñi gëm yàlla yaa ayyuha allazina amanu yi ci alquran yi daje ñaata la am na ñaari kàddu fii de yaa ayyuha allazina amanu yëpp la cheikh bu jël def ko benn téere tudde ko nidaatu rahman yaa ayyuha allazina amanu abdullah ibn abbas nee na bu ngeen ko déggee taxaw leen ñaari mbir rek la da lay digal wala mu tere la yaa ayyuha allazina amanu kan moo woote yàlla ñan la woo ñi ko gëm lu mu leen di doyee ndigal la leen di jox ee yéen ñi gëm seen borom moo leen di woo nee na laa yaxillu lakum du dagan ci yéen mukk an tarisu nisaa ngeen donnu jigéen ñi kër an force sa jëkkër dem sama mag la woon maa lay doon li am Sénégal mu mag gi dee ñu ne rakk ji yaa fi sa par force lu ñu laaj sax ndaw si waaw buñ ko laaj buñ koy laaj sax bu tënj bi jeexee ñu ne ko ah léegi yow dëgg yàlla libre nga da nga fay ñëwoon sëy si yàlla nag def na sëy nga ci kër gi sëy bu rafet bu ñu sañoon doo génn kër gi ndax diwkat bàyyi na fi ñu la mën a yore laaj ko xalaatam mais ci yenn dëkk yi ci yenn kër yi nit day dee rek magam ñëw wala rakkam wala wala wala rek sama waay ñu ne ko ah comme yow danga doon see rakk waa ji waa ji dee na magam a ngi nii acca mooy uuf xale yi ana waa takk mu nekk ay problème yu dul jeex loolu kenn du ko def kenn du doon jigéen fal force yàlla daf ñu koo tere aaya baa ngi nii ne weñ bi duuni ridaahunna karhan maanaha bi duuni ridaahunna force boobu yàlla wax lan lay tekki mooy ñu jël ndaw si takk ko te laaju ñu ko aviem laaju ñu ko xalaatam ndax kon ndax d'accord na ci li jaadu mooy laaj ko bu fekkee bëgg na fee sëyaat bëggul tasaare ay doomam aussi bëgg nañu encadrer leen mu ne waaw alhamdulillah dëgg la amul problème su fekkee bëggul nañ ko bàyyi te buñ ko bunduxataal nag kenn amul droit bunduxataal parce que du force ku njëkk ko sax bu muy séeg moom du force bu ma laa ku mujj ki kon yàlla moo nu jox ndigal mu nañu lan du dagan laa yaxillu la wax du dagan ci yéen an tarisu ngeen don an nisaa jigéen ñi karhan ci force daganul benn yoon suñ ko defee it dañ leen ëpp doole waaye ndaw su su ko neex su xamee dëgg xam diineem mu lànk waaw démb la woon wa asbat almara iza mata zawjiha i'tadat fi bayti zawjiha démb bu jigéen bu jëkkëram faatoo mbokk yi wër ko am na ci ñoo xam ne sax dañ la daan sànni kaala rek ne kaala gi niñ ko moomee lañ la moomee moo droit génn kër gi kon gis nga ay yi bokk na ci jigéen ñi ñuy wax ay droit de la femme ay journée mondiale de la femme yàlla fi mu fekk jigéen ak fi mu ko indi amul benn nation amul benn xeet amul benn nit amul benn organisation bu defal jigéen li ko yàlla defal amul amul fenn bu nu doon wër àddina bi ba mu jeex dana fekk yàlla fi mu teg jigéen kenn tegu ko fa ci màggal ci jox ko ay àq ci aar ko jigéen ak alal ñaar yi li yonent bi di rëy rëy yëpp di màgg lépp di tedd lépp yàlla teg ko ci loxoom ñaari yàlla moo ko waxal boppam ci alquran jigéen ak alal jigéen ak alal yàlla moo ko leeralal boppam moo tax gis nga aaya bi gën a gudd ci alquran lan lay lijjanti mbirum alal yàlla tuddee jigéen ñi sax saar suratu nisa mooy saar bi ñu nekk mu ne bu leen donn jigéen ñi ci force waaye wala taaduluhunna baat bi muy al adlu mooy ay cër cër adalaatul insaan mooy cëri nit ah al adalaat mooy cëri nit lan moo tax yàlla mu ne wala taaduluhunna xam nga lu ñu bañ mooy nga téye ko ci kër gi téye boo xam ne da nga koo téye ba téye ay cëram léeg-léeg nit téye la fekk téye bi mu la téye jàppul sa loxo jàppul sa tànk waaye moo la tere bouger téye googu la yàlla di tere góor téye ko soxnaam ci biir kër gi téye boo xam ne dafa metti ba yàlla nuroo ko da ngaa téye cëri ndaw si da ngaa téye loxo bi téye tànk yi téye bët yi téye gémmiñ yi téye nopp yi maanaam cër yépp nga téye moo tax yàlla indi baat boobu mu ne wala taaduluhunna bu leen leen téye téye boo xam ne dara waral ko rek li tazhabu pour ngeen récupérer wa bi baadi ma ateytumuhunna lenn lu ngeen leen mayoon ci can dinaa la fi téye ci kër gi duma la fase duma la takk ndax bu ma la fasee day yomb yi laa lay téye kenn du la takk yenn saa yi nga gis jigéen bu fay sept ans quatre ans trois ans deux ans yow nga ne ko waaye yow tas nga mu ne tasuma nee na du ma fase te loolu amoo ci droit deux ans yooyu wala trois ans yooyu wala quatre ans wala cinq ans yooyu joxe woo dépasse su fekkoon ne sax da nga ne ah fase wu ma ko de weer bu dee nga indi saabu ceeb indi saabu indi diwlin daal di génne quinze mille teg ci daan ne ration xale yaa ngoon laa nga mën a wax ne man fase wu ma mais yore naa mais ndaw si fay dem am na jigéen joo xam ne daf ma woo téléphone ne ma toog na un an ferme maag sama borom kër ci biir kër ci biir néeg bokkuñu laal ma ne ko lu xew mu ne ma xaw ma lu lu xew moom moo ma gàddaay de wàcc lal bi keneen ki woo ma ne ma man sama borom kër mënu ma ko comprendre day toog ba mu neex ko rek ne ma bismillah tey damay damay damay tëdd ci kaw lal su ko neexee rek toog 3 mois 6 mois ci suuf lay tëdd te man duma xam lu ma def su ma ko gisee mu commencé yooyu dama naan ko lan laa defati mu ne këj xëy di ma jox dépasse di def lu nekk waaye du séq ak man loolu ban diine la góor ñi dañoo jàpp ne jigéen ñi ay esclave lañ seen biir kër yi leen neex ñu def am na ci koo xam ne surtout jigéen joo xam ne papaam dafa dee yaayam dee yow xaw xaw nga tane tuuti ndaw si di hésité naan ah man kii bu ma fasee aw ma fu ma jëm sama ndey dee na sama baay dee na kër ga dafa xat rek ngay def la neex nag waaw xam nga ne yaa ngi ni amoo foo jëm xam nga ko waaw mais ragalal yàlla ci moom jaamu ci yàlla nga am tiyaaba moo gën nga koy bundoxataal ci kër gi naan ko amatoo foo jëm bu la neexee nga abandonné ko xëy na yow am nga beneen soxna mën ngaa dem di régler foofu say problème say affaire moom mënu ñemewul dem ci beneen góor parce que loolu mënul nekk loolu nit ñi nañ ragal yàlla ci seen jabar yi wallahi alazim keroog ba ñu bàyyee di déglu alquran di ko jàng di ko comprendre di ko tafsir la àddina bi yépp am problème la islam am problème aaya yii nii lii yàlla bu waxee lii ñun ñu toog fële du ñu ko jàng bàyyi ba nit dee ñu ñëw ya ayuha alladina amanu la yahillu lakum an turisu nisa lii lu muy jëriñ ku dee ki waaye lii nga jëriñ am ana ana ñaan bi gëré gi ñeneen toog naan amin yenn paay naan ku mënul jël ci jukki yi jëlal kurus waaw mooy ku jàngul ku ngeen dégg ñu naan ku mënul jël jukki jëlal kurus mooy jànguñu mais léegi bu fekkee ne lii ñun dañ ko nar a continuer nii ba kañ mais lii ay loi la laa yaxillu lakum yàlla ne daganul ci yéen an tarisu nisa karan ngeen donn jigéen ñi force léegi lii bu ñu bàyyee ba waa ji dee xëy na dundam yëpp da ko doon dem ñu koy jàng seen diggante ak yàlla lii lan la jëriñ beneen bu fekkee aussi dañ ko nekk rek di ko jàng ci julli yi di neexal baat gars yi xamuñu nekk ci ginnaaw xamuñu lu muy firi kenn di ko tekki léeg-léeg sax nga dégg Sénégal ñu ne bu leen firi alquran bu kenn déglu ñuy firi alquran xam nga wax jooju dañ koy tuumaal Serigne Touba Serigne Touba waxul loolu te du ko musa wax musu ko wax te du ko musa wax ku jàng masaalikul jinaan jàng tasawudu sixaar jàng tasawudu ziwaan jàng fatxul manaan di nga xam ne cheikh bi waxu naka la koy waxee bu leen déglu alxuraan bu leen fekke fu ñu koy firee na leen jaral ngeen yër fas daw ko ba solal ko dàll weñ daw ko ba weñ gi xoosu ba jeex bu leen ko fekk loolu sëriñ bi du ko est-ce que alxuraan bu ñu ko jàngul du ñu xam diine xool leen lii bu ñu ko jàngul dañuy dañuy jox suñu jabar yi ci biir kër yi daf leen ay mbaam fekk amuñ ci benn droit yaa ayyuha allazina amanu la yàlla wax yàlla waxul ee yéen yéeféer yi waxul ñeneen ñi ñan la woo jullit yi ñi nga xam ne gëm nañu yàlla nee nañu waaw di va et vient ci jàkk yi guddeeg bëccëg ñooñu la yàlla woo ne leen bu leen lor jigéen ñi wala taaduluhunna bu leen téye seen cër yi bu leen leen tere bu leen leen tere téye seen cër yi al manu bi shidda tere gu metti ka annahu gis nga ka annahu amsaka bil adalaat aw min al adalaat téye boo xam ne dafa mel ni danga kaa téye ci ay cëram wala nga téye lenn ci cër yi moo tax yàlla indi baat bi xam nga ki la ne amatoo droit dem marché bul génn kër gi mayatuma la nga buuse bul sax togg toggal rek ne kooku tere na la lan moo tax mu wax loolu nag daf laa bëgg a bundu xataan waaw ba maa ngi dem dëj mu ne demoo maa ngi dem ngénte demoo maa ngi dem ceet demoo damay seet sama papa demoo géej naa fa de ba ma sëy sëy ba léegi mosuma faa dem nga ne ko doo fa mos a dem lu tax nga def loolu bëgg ndaw si sonn ah li tazhabu ngin ngeen yóbbu ngeen récupéré jël bi baadi ci lenn ma ataytumuhunna li ngeen leen mayoon ci can bu ndaw si sonnee rek ne la xoolal sëy bi sonn naa ci jokkoo naag samay mbokk nee nañ nga wax li nga joxe woon ñu fay la nga ne indi indi leen indi ndek yow lii rek nga bëggoon moo tax nga téye ko di ko ñooñ di ko xoñoñal xam ngeen xoñoñal ah di ko bundu xataal di ko maltraité ci kër gi ngir lan mu sonn rek moom ay mbokkam ñu dajale ñaata nga ma mayoon waxoon naa la deux cent cinquante mille ñu ne am koo sëyal ba ngeen am ñetti doom ñeenti doom juróomi doom ngay récupérer li nga ko mayoon est ce que loo xel nangu na ko ah ah bu ngeen xasoon sëy sax weer rek mu nekk sa kër ngeen sëy weer di bokk néeg di fanaanandoo ngeen di sëy mu tooñ la sax boo ko fasee war ngaa di rafetal jël jël ko def ko ci oto yóbbu ko ba këram ne papaam kii kat yaa ma ko mayoon mu ne waa nga ni gis naa ci moom loo xam ne man ak moom mënatuñoo continuer téye ko ngeen gisee keneen ngeen may ko waaye am na ci ñoo xam ne nii rek la ñuy def tàllal seen loxo waaw cent cent mille laa la mayoon cent mille acca fay ma deux cent cinquante mille laa la joxoon acca fay leen ma fay leen ma rek ñu daal lay fay fekk naa ci benn boo xam ne bi ñuy fay waa ji ndeysaan dafa am ku xëm fa tiit ba xëm yuuxu rek daal daanu ndeysaan te kooku dañ ko defal ay teraanga yu dul jeex mu dem nekk xale bi di am ak moom problème di am ak moom problème di ko dóor guddi di ko dóor bëccëg papa ji ne ko bul ko dóor mu ne ko dama koy dóor wala ngeen fay ma li ma joxe woon papa ji ne ko bismillah ñëwal jour sàngam ñu fay la biñ koy fay am na si témoins yi kenn ki dafa yuuxu rek daanu xëm ndeysaan war nañ defaraat suñu jikko yi julli dafa war a am jikko bu rafet jikko bu baax yàlla mu ne kañ ngeen am droit loolu illaa lu dul an yaati nañu indi ñoom jigéen ñi bi fahishatin ci njaaloo mu bayyinatin bu biir indi bàkkaar bu garaaw nag boo amee soxna nag ñu may la ko mu ñëw ci kër gi nekkee yee biñ la koy may dafa am benn waaye bu mu nëbboon ci suuf kooku la loolu ngay dégg xale yi di def nii da ngay dégg ñu ne pourtant moom bàyyiwul ki mu doon génneel de c'est que waa ji mu am xaalis nag loolu musiba wu rëy la nga am jëkkër am far ba sa jëkkër jàpp la bett la su boobaa nag am na droit ne waa këru ndaw si ak ndaw si li ma leen joxoon ñëpp delloo leen ma ko ndax bii moom dafa ëpp dafa ëpp feneen fu dul fii nag yàlla waxu ko lii la yàlla wax fii nga jàpp sa soxna mu nekk ci njaaloo wala mu nekk ci ay fay yu dul jeex waaw minute bu ne mu jël bagage minute bu ne anamu dem na seen kër minute bu ne dem na seen kër di fay loolu bu tëyee takk yàlla ne rek ki nanguwul sëy ñëwul pour sëy tàllalal sa loxo ñu deer boo ko mënul baal mënoo ko fase tàllalal sa loxo ñu fay la li nga ci defoon jàmm na yooy mais xam ngeen ne jikko bii tey dafa bëri ci Sénégal léegi dem nañ ba da ngay gis ndaw si am doom waa ji di ñëw di tudd keneen ñëw di tudd indi xaram billaahi wallahi wa taalaahi ndaw si génn na àdduna yal na ko yàlla jéggal kooku may wax ni dafa am doom seen waa kër leer leen ne jëkkër jaa ngi ñëw day tudd si ñu yóbbu jëkkër ji ci kër gi yóbbu far bi hôpital mu tuddi ñu indi jëkkër ji ci kër gi mu tudd maire bi moo joué maire bi de moo joué dil boobu yóbbu ñee fee indi ñi fii waaw ñu bëgg a génne liir bi mu ne dukk ci àdduna kenn du génne liir bi ak ndaw si kenn du ko génne bàyyi ji ak yaa ak ak na dem hôpital tuddi mu ne mu ne far bi ñooy leen ci kër gi yéen ngeen tudd ndax ndaw si dafa feebar mënul ñëw léegi xale boobu kuy papam loolu du jeex ci dëkk bi du jeex ci dëkk bi du jeex ci dëkk bi ci jigéen yu bon yi ñuy def koñ bi ma dëkk am na benn waay boo xam ne dafa ñëw dugg ci bitig gis ko benn xale daal di koy fab di ko jëndal bonbon papa ji daal di yëg loolu daw dugg ci bitig bi di xeex ak waa ji ñu ne lan la ñu ne waa ji nee na doomam la doon jëndal bonbon papa ji ne kii maa ko jur waa ji ne maa ko jur ku jur doom yooyu bêtises yooyu léegi la jigéen ñi nekk am jëkkër am far boo waxee ñu ne la boo amee jëkkër boo amee far du feeñ ndax soo ëmbee rek sawaa ji ne man la jëkkër ji moom kenn du laaj léegi loolu la jigéen ñi musiba boobu la jigéen ñi nekk di ko tiitaroo waaw am jëkkër am far waaw yàlla ni yàlla dimbali may nu ay njaboot yu baax ay soxna yu baax yoo xam ne ñu ragal yàlla lañ boo amee jigéen sa kër te ragalul yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy misaal àdduna di misaal jigéen dan la wax bénéfice bi gën a rëy ci àdduna nit di ko am mooy almaratu saaliha jigéen ju baax ñu ne ko nu muy mel mu ne boo fàddoo mu aar boppam aar sa njaboot aar sa alal waaw boo fàddoo maanaam bu la gisatul mu aar lépp loo yor aar boppam aar lépp loo yor almaratu moo tax nit bala muy tàkk jabar bu yeboo nga tànn waaw tànn nag du yére du yére bi la ñuy tànn wax nettali naa leen barki dem benn chinois bu ma gis ci facebook bi bu takk jabar ñu dem yendoo wër yendoo wër ci oto def tournée def lu nekk guddi jot ñu war a tëdd nag ñu ñëw waa ji ñëw rek toog ci fauteuil bi ndaw si dem ci fi ñuy summeekoo taxaw waa ji di ko xool ndaw si dindi kaala gi teg waa ji di xool mu dindi li mu dëppoo woon ci bopp bi teg waa ji di xool mu dindi lim defoon ci ween yi ansi lim ko pompé woon daal di teg waa ji di xool mu simmi dàll yi waa ji di xool mu dindi weyi waa ji di xool weyi mu poosé woon waa ji mu dindi yim defoon ci yéen yi bët yi mu poosé woon waa ji di xool mu daal di nii ŋaam ji dindi kii bi rek waa ji xëm waaw mu dindi kii bi li mu monté woon ci bëñ yi xëcc ko rek waa ji daal di daanu xëm kooku léegi lan la xalaat man ndeke damaa àbb aw maanaam man jabaru demoon taxaw ma lan ah démontable bu ñu léegi lépp loolu moo am wee yu ñuy poosé bët yu ñuy poosé bëñ yu ñuy poosé ange yu ñuy poosé ween yu ñuy poosé kawar gu ñuy poosé léegi nag boo ci takkee jigéen joo xam ne lii lépp da koo poosé bu guddi jot ngeen war a tëdd rek mu koy démonté ndax ki nga gisoon ki nga gisoon di mu solu moom mooy mooy kii moom la xam ngeen ne du nekk benn mukk ci àdduna du nekk benn moo tax balaa ngay takk kuy kuy monté di di poosé xool ko ba nga xam ne kii pooséwul moo gën muy muy muy ñëw di démonté affaire yi ngay xëm waaw loolu moo am léegi de lépp dañ koy monté bis boo ci demee ab soirée wala ngénte wala céet ba daja fa kenn mu monté ba doyal ne nga gis ko mu rafet ba nga miir nga jóge ci say million sa alal ba nga xëcc ko mu ñëw nag ngeen war a tëdd li mu monté woon yëpp mu démonté ko nga toog naan ñu ne la kay tëdd nga naan non dama am lu may xalaat kay tëdd nga xaar lu tuuti est-ce que kii la waaw est-ce que kii lañ ma mayoon est-ce que yow yaay diw mu naan la ah xamoo ma ah xamoo xamoo ma la de du waral loolu mooy ñàkk a tànn yonent bi moo wax dëgg de tànn leen yonent iyaakum wa xadara uddiman ñu ne yow ne mooy tuddiku leen gattaxu nëtëxu gattaxu sën nëtëx xam ngeen nëtëx mooy lan mooy naat naatu gattaxu sën xam ngeen gattax ah waaw kon xaaral ma jox leen beneen terme naajo xam ngeen ko naajo bu saxee fu ñuy tuur mbalit nu muy mel day naat décret départ génne fleur verte rafet fleur bi naat rafet waaye du am yomb du am doom du am yomb boo ci yaakaaree di nga lekk naajo dégg même bu dee dugub noonu lay def day jug rek focc waaye bu demee ba ci kaw rek boo laalee affaire bi mu daal di naaw fur fur yonent bi neen mooy jigéen ju rafet ju amul diine noonu la mel amul diine dafa rafet waaye amul diine noonu la mel gis boo takkee jigéen ju rafet ba pare nag xam ngeen lan moo nekk ci danger takk jigéen bu rafet ba amul diine xam ngeen ko mooy doo ko mën a fase ki dafa rafet boo koy takk gars yi di ko jël nga nekk nag ndeysaan mu lay mbugal nag mu lay mbugal nag waaw boo ko ne bul dem mu ne damay dem de ndax ñëppay dem damay dem bu bu demee ngay xalaat waaw man léegi nu may def ah naa muñ rek doo musa wax de naa ko fase naa muñ rek parce que looy wax dafa rafet surtout nag nit ñi naan la wu sa jabar ji rafet na loolu daal mu nga fase gars yi moom rek la ñuy xool dañ koy takkaat yéen nag nooy def da ngay am problème mu nekk di la mbugal doo lekk ba suur doo naan doo tëdd nelaw muy cambir cambari sa kaw musiba dal la benn waaye def nañoo yoon sama jabar bi day njaaloo rek mais dafa set ko mu ne dafa rafet nag mu ne teel nga muñ gis nga doo ko mën a bàyyi moo tax takk jigéen ju rafet ju amul diine surtout ju yëg ci boppam man damaa rafet nit ñi ne ko da ngaa rafet wala chaque jour ñu naan ko xam nga yow yow sa waa ji am na sens de kii pourtant boo ko bàyyoo te loolu moo léegi léegi ci dëkk bi waaw kii gis nga kii boo ko bàyyee ñu ko gën a garaaw ngay am am na ñoo xam ne léegi sax dañuy nangu jabaru jàmbur yi yow kii ngay sëyal xam nga yow doo moroomam ndaw si dem toppi la ñàkk a ragal yàlla ñàkk a yar gi ñu yar jigéen ñi musiba bu rëy la ñu indi alal bi ñu jiital seen kanam Sénégal alal la ñu jiital musiba bu rëy la musiba weesuwul nit ñi jiital alal topp ci ginnaaw alal di daw fu alal dugg ñu dugg fa nuñ ko amee baax na nuñ amee alal bi rek baax na kenn xalaatul dagan na kenn xalaatul araam na kenn xalaatul rafet na kenn xalaatul rafetul amal rek amal rek lii lépp lislaam def ñu koy tere mbokki jullit yi borom bi nee na wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigéen ñi bil maaruf ci njekk gis ngeen wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigéen ñi ndeysaan bil maaruf ci njekk allahu akbar lan mooy al maaruf muy lépp lu baax al maaruf maa arafahu charu waajiban aw manduuban aw mubaaxan lépp loo xam ne charia nee na rafet na islaam bëgg na ko sopp nañ ko yàqul defar loolu pour nga nekk ak sa soxna waaw dem seen kër day tax waa këram ah kontaan ci moom kontaan ci yow xam ne bu ndoxataal ko bàyyi ko mu dem yow kay li ngay def mooy bul fa yàgg bu la fa nangam fekk wala may ma ma dem ci diw seeti ko jox ko xëy na bu bëriwul it weer wu nekk nga def ko benn yoon même ci biir kër gi ay arsaleeg ay gëddëg ay xasteeg ay saagaak ay buleeg loolu ab jullit du ko def ndeysaan benn borom xam-xam ba ma doon seetaan démb tey sax gis naa ko tudd ayit qarni muy defal nit ñi waxtaan mu ne ay borom xam-xam yu bëree bëri yu mu doon déglu moom ci jamono ñu koy jàngal nee nañ pour nit dundandoog soxnaam ci kër gi du am problème nee na boo ñëwee ndaw si wax ne ko waaw dëgg la de dëgg la man mi maa ma dëgg la maa juum maa juum même boo juumul dana ko waa dëgg la wax nga dëgg waa léegi baax na nag doy na nee na bu wax ji continuer di bëri di bëri génnal jàppal damal jàkka ja toog foofu balaa ngay ñëwaat dina fekk mu gis daal di jeex waaye boo ñëwee sa kër sa soxna di yuuxu nga yuuxu mu taxaw nga taxaw nga dégg summeeku mu summeeku nga seere ceinture bi mu takk sër bi fu ngeen jëm du baax te gis ngeen accident yi ngeen di dégg musiba yi ngeen di dégg bët bi toj naag damm na bëñ baag damm na loxo baag avorté naag lan moo ko waral mooy ndaw si indi fitna nga topp ko ci fitna bi parce que yaa ko ëpp doole koo koy laal muy gaañu kon lan mooy xikma mooy su waxee nga ne ko waa dégg naa li nga wax waa léegi jeex na nag maa juum ah jeex na wax ji daal di jeex xam nga wax bu guddee rek lan moo ko waral tontu day wax ngay tontu loolu rek mooy guddal wax cheikh bi nee na bu wax ji bëree génnal dem jàkk ja toog fi est-ce que xam ngeen yonent bi fanaan na jàkk ay fan ah yonent bi fekk na ali sax ali mu fanaan ci ci biir jàkka ji ci suuf si ndeysaan mu tëdd sikkim bi tu taq suuf yonent bi fëgg ko ne ko yaa aba turaab e bàyyi suuf si jógal te pourtant am ak am ak soxnaam yi problème rek moo taxoon mu daal di gedd kër ga daal dem jàkka ja fanaan wa ashiruhunna dund leen ak jigéen ñi bil maaruf ci njekk ci njekk mbokk yi baatu njekk ci olof ban firi ngeen koy jox baatu njekk mooy lépp lu baax lépp lu rafet lépp lu diine nangu aada nangu ko ngor nangu ko jom nangu ko dundal ak sa soxna loolu te soxna sa nawle la te aaya yii wa ashiruhunna bil maaruf ñaata la ci alquran yàlla wax nañu dund ak jigéen ñi dund bu rafet wax naa sànq balaa ñuy takk moo gën a neex sunu takkee sénégalais balaa muy takk ci ndoxaan gi ban moment lañ toll seddaay wala tàngaay ah daay seddaay lañ toll da ngay gis ko ànd ak xale bu jigéen boo xam ne takk ko sedd bi métti nga génn sa kos trëf booy jàppal ko bi quoi nga sol na nga naan nii na yow ci sedd bi yow kese xale bu jigéen bi jël sa manto ndeysaan daal di koy sol wala te bu fekkoon da nga koo takk nga da nga naan ko nga dee de man de xuma la jox de xam nga nga ne da nga sol da nga kër li ah waaye yow bi nga ko takkee lii kay nga ko war a jox mandu bi wala mais imaginel léegi joxoo ko kos bi te démb da nga koo jox te tey la na dagan kon ana wa ashiruhunna bil ma'ruf bi nga amul soxna da ngeen doon génn ngeen di génn a di doxantu ngay dem ay bees doore di dem dibi di lakk lu dibi léeg-léeg nga ñëw ne waa lakkal ñu foofu 2000 waaye sa 3000 tey jii nag bi nga ko takkee doxantu jeex na mu sëy nu muy neexee sëy liñ ko takke woon ca commencement ba mu neex loolu bu dakkul sëy bi day continuer di neex takk nañ tey rek ngeen commencé am 2 mois 3 mois mu ne la nañ doxantu ñu nga ne waa ban doxantu fu ñu jëm waaye nañ tëdd waayow beneen bi mooy da nga daan ñëw ngeen toog ngeen di waxtaan tey ñëw nga rek nga commencé fas kanam di ñàngal di ñuulal kanam te yow démb ba ngay ñëw ci kër ga takk goo woon sa kanam gi day leer ngay ree rek yenn saa yi sax yaay xale bi ne la kaay tuural ma mbalit nga dem tuur mbalit di baax baaxlu tey xale bi bu la nee tuural ma mbalit yow yow yow xam nga li nga wax nga dem woy chef de quartier te démb gas ngay pax ba sonn ah gas nga foos bi yenn saa yi sax maire bi ne la suñu foos bi dafa fees nga ne guddi ma ñëw ngay ndaale sa équipe yooyu nag gis ngeen mooy musiba bi tas suñu kër yi mooy bu ñuy bu ñu takkagul di def yu neex ba ñu ne kii de ii kii de ku mu takk aljanna nga jëm nga takk rek une semaine mel ne woon du woon yow ba lu sax kër gi dañ naan waayow yow ki fi doon ñëw moom moo nekk nii ndekkee da nga doon yoon ba am li nga bëgg léegi am nga rek nga changé loolu jullit du ko def jullit warul yor ñaari jikko bu fekkee ndoxaan gi dafa neexoon te ndoxaan bi daganul léegi nag takk nga dagan na kañ la war a neex tey la war a neex nañu dégg li ñu yàlla wax bu ñu ko defee rek du ñu am problème ci suñu sëy borom bi nee na fa in karihtumuhunna bu ngeen bañee ci ñoom dara boo takkee jigéen nga takk nga ko waaye gis nga ci moom jikko bu la neexul fa asa amaana an takrahu shay ngeen bañ dara wa yaj'alu llahu fihi xayran kasira allahu akbar ah sunu bopp takk nga jigéen ndeysaan mënul togg si yow ndekk yow mënoo togg non waaw yàlla nee na bul ko bañ ndax mënul togg mais saa yu la fóotalee saa yu génnee saa yu solo saa yu waxee saa yu saa yu saa yu lay accueillir da ngay kontaan yàlla nee na téye ko loolu lee nga bañ am na leneen loo xam ne baax na ci maanaam li baax mën naa nëbb kon li bon mais ñun benn rek ngay gis benn fekk am na téeméer yu baax benn bu bon bi rek ngay wax man kay li ma metti rek mooy mënul togg man fu ñu wax rek man kay li ma metti rek mooy mënul togg man kay loolu rek moom metti man kay problème boobu buñ ko réglé waaw yeneen problème yi nag est-ce que sëy bi loolu kese la kon ndaw si soo bañee ci moom benn jikko yàlla nee na amaana fa asa amaana an takrahu shay ngeen bañ dara ci moom wa yajaalu llahu fihi xayran kasir yàlla dina def ci moom yu yiw yu baree baree bari yu bokkul ak bii kon muñee ko yeneen yu baax yi muñee ko bii metti la xëy na ndaw si dafa tàng moom léppam normal na mën na togg mën na fóot mën na lépp waaye ay kàddoom ñoo neexul yàlla nee na muñe ko yu baax yi muñe ko bii waaye ñun benn borom xam-xam oustaz Shayba yal na ko yàlla yërëm nee na doomu aadama yi dañoo yor jikko weñ weñ xam ngeen weñ dañuy di naaw nee na weñ da ngay sangu ba set sa salle de bain nga génn diw ba rafet xeeñu parfum sol yére yu set pecc nga génn weñ bi tag sa kaw di wër di wër lu muy wër fu góom nekk xoolal yaram bi yëpp ni mu setee mu ñëw ba ci sa loxo bi gis fi benn góom rek toog foofu di gas naan ko nii di gas góom bi pour mu xóol xoolal yaram bi yëpp fi weñ bi mën a bànneexu lépp a set lépp diw nga ko lépp peñe nga lépp def nga ci parfum waaye weñ bi góom bi rek moo ko intéressé maanaam yaram bi li fi wér ak li wére di lu ëpp li wér waaye weñ bi li wér intéressé wu ko lu ko intéressé mooy fi góom bi nekk doomu aadama yu bëri noonu lañ mel dañuy xam ci yow téeméer yu baax xam ci yow benn bu bon bu bon bi mooy moom mooy mooy li leen intéressé moom la ñuy exploité loolu du diine loolu du nit loolu du diine loolu du jikko ju rafet waaw nit boo ko xamalee téeméer yu baax waxtaanal ci loolu leeralal loolu yaatalal loolu soo ko xamee benn bu bon nëbb ko ndax li mu baax le kooku bu doon yowmal qiyaam la ñuy peese ay tiyaabaam mu am téeméeri tiyaaba ak benn bakkaar fu mu jëm yàlla sax du xool benn bi du koy dugal aljanna direct waaye da ngay gis gars yi nga ñëw ñu naan waaw mel mel kay suñu problème rek mooy yow da ngay sawlal loolu loolu du diine kenn du gas nit lu mu yore lu lu nit am kenn du ko gas borom xam-xam yi nee nañ booy wax yëfu nit sikku nit ñu ne boo ko joxoñee benn baaraam yow joxoñ nga sa bopp ñaata joxoñ nga sa bopp ñett xoola yi ci man lañ ñëw su ma nee nii benn laa ko wax man ñaar laa wax sama bopp gis nga ndeysaan wala booy xool sikku nit ñi rek yow tamit am ngay sikk xoolal say sikk kon yàlla subhaanahu nee na fa in karihtumuhunna bu ngeen bañee benn jikko ci jigéen ñi fa asa amaana an takrahu ngeen bañ shay an dara loolu ngeen bañ wa yajaalu llahu fiihi yàlla def ci xayran yiw kasiran bu bari fa in aradtum bu ngeen demee nag ba namm an istibdaala watte changé zawjin pl- soxna makaana zawjin ngeen teg ko place beneen soxna maanaam da nga amoon soxna nga dem ba bëgg a remplacer soxna si ak beneen soxna fekk wa aataytum joxoon ngeen ihdaahu na kenn ci ñoom xintaaran can alal ju ne gàññ wala taaxusu minhu shay bu leen ci jëlaat dara nag maa la takkoon toog naa ba ci yàgg gis naa keneen bëggatuma la benn néeg laa yor mënu maa yor ñaari jabar gis naa keneen mayoon naa la un million yàlla nee na un million bi bu ma ci jël dërëm waaye nag gars yi noonu la ñuy def dañ lay takk gis keneen benn néeg lañ yor mënuñu yor ñaari jabar ñu commencé di la kéréel ay problème pour nga dem bis boo jëlee sa bagage ne caw rek ñu indi keneen moo dem ma takkaan moo dem moom la fekk yow xam nga ne ni da ngaa daas fanaanal loolu du jikko bu rafet yàlla nee na bu fekkoon ne da ngeen a bëgg a changer soxna place beneen soxna ngeen may ko alal ju dul jeex yàlla mu ne bu ngeen demee bay def loolu bu leen bu leen jël ci alal ji dara alal ji mooy lan lal bi ci la bokk armoire bi ci la bokk fauteuil yi ci la bokk gars yi nag dañuy xam ne mënumaa jëndaat benn néeg la am mënumaa jëndaat lal mënumaa jëndaat fauteuil mënumaa jëndaat armoire ma créé ay problème xëy suba bañ a joxe dépasse ngoon jot ma tëdd ci suuf ñu jox ma lekk bi mu bule ko ba pare boole ci yow xanaa amoo foo jëm xanaa amoo ay mbokk yow demal ah ah léegi nag yow léegi da ngaa bëgg ndaw si dem ay loxoom kese su demee rek nga profité nag léegi takk kële ñëw kële ñëw nag léegi di tëddaat ci lal bi jëlaat armoire yi jëlaat bagage yi déedéet mu koy boo fekkee am nga doole ba koy def gaareel camion gaareel camion aywa dugalal bagage yëpp dugalal valise yi dugalal lépp lemmil sax tapp bi du am nga doole rek da ngay jaay maanaam lemmil tapp bi léegi nag boo paree nga defaraat néeg bi ba mu baax dem jëli kële ñëw loolu mooy diine yàlla nee na bu ngeen mayee jigéen xintaar alal ju ne gàññ mu ne fala taaxusu bu leen jël minhu ci alal bi shay an loolu mooy lépp la dara lal bi bul ko jël bul jël matla bi bul jël kuddu yi sax jox ko mu yóbbu bul jëlaat yaa ko jëndoon yaa ko indiloon moo ko moom fas yéene ngaa indi keneen yàlla nee na alal ji ngeen ko mayoon bu leen ci téye dara waaye yéen sax a taaxusunahu ndax da ngeen di jee alal ji buxtaanan ci bàkkaar buxtaanan ci ñaawteef wa isman ak bàkkaar mu biinan bu leer gis nga lii yàllaa ko wax léegi nag lii buñ bàyyi ba waa ji dee ñu yow ko gaa yi toog fe naan amin am ñu yor seen kurus naan astaghfirullah lan lay jëriñ ku dee alxuraan du pour jàngal ku dee alxuraan pour ñu xam ko la comprendre ko ay ñun lay waxal pour bu ñu yoree kër ñu xam naka la ñuy téye sunuy soxna ñu xam naka la ñuy téye sunu borom kër ñu xam naka la ñuy dundee sunu diggante lépp la yàlla wax yàlla bàyyiwul dara gis ngeen lii diggante borom kër ak soxnaam la lii nii yàlla wax su fekkee duñ jàng alxuraan wala weeru koor ba weeru koor la ñuy tafsir yenn saa yi sax bu ñu koy tafsir tafsir bi day gaaw ba nga xam ne waa ji du comprendre mooy suñ tafsir yooyu am ci sunu jàkka yi par weeru koor wen aratum bu ngeen nammee istibdaala watte zawjin soxna ma kaana fala zawjin soxna waate itum ngeen jox idaaw na kenn di ñeen xin daaran alal juna gaañ fala taaxusu bu leen jël mi nu ci moom sayan dus a taaxusu ndax da ngeen koy jël bootaan muy ñaawteef ways man a bakaar mu bi man bu leer loolu ndeysaan yàlla yàlla so soppi loolu du diine diine bi waruñu kërëj kërëj aaya yi waruñu ko profito dañu war a def ndànk aaya yi jàngal ko jullit yi leeral leen ko ba mu leer ndax jullit yi war koo dund yàlla mu ne wa kayfa taaxuzunahu naka ngeen di récupérer alal ji ngeen jël ko te waqat aqda baadukum ila baad sëy ngeen ba pare ndaw si jànq la woon bi nga koy takk nga yóbbu ko sëy ak moom deux ans ba ngeen am benn doom nga fase ko ba pare téye alal ji te waqat aqda baadukum ila baad aq ah lan la afda barakallahu fikum waqat afda baadukum ila baad yenn ci yéen eggante ngeen ba pare eggante ngeen sëy ngeen kenn ku nekk egsi na ci moroomam kenn ku nekk bànneexu na ci moroomam ay xalasa zawj ila awrati zawjihi wa zawja kazalik yéen ñaar futteeku ngeen kenn ci yéen jiitalul dara ku nekk gis awra moroomam ku nekk awra moroomam egg ci awra keneen gi ngeen sëy ba doom juddu ci même bu ci doom judduwul woon sax ñaaw na nga téye alal ji rawatina nag léegi doom juddu ci yàlla de xool yàlla moo ko waxal boppam de waqad afda baadukum ila baad yenn ci yéen eggante nañ ba pare ba pare yemu ci loolu wa axas na jigéen ñi jël min kum ci yéen misaaqan pacte xaliis bu tar jigéen bi siñanteeg yow ah man de wax dëgg yàlla bëgg naa sëy waaye damaa ragal nga ni ko lay ragal mu ne xam nga léegi dëkk bi dafa métti damay bañ dugg ci sëy ba pare di ci génnaat nga ni ko loolu du ci am man yow xam nga ne man yow bëgg dama la bëgg dinaa la suturaal dinaa la téye dinaa la ngay dinaa la rek lu ne nga wax ko dinaa la lu ne nga wax ko digee ba digee ay wee ay biddéew waaw naa la jëndal ab naa la luweel appartement naa la jëndal double lii naa la jëndal oto dinaa la naa la naa la fayal nga continuer wala nga def formation ay waay loolu yëpp defoo ci dara te signature la woon yàlla mu ne wa axas na jigéen ñi jël nañ min kum ci yéen miisaaq loolu la tukulóor yi naan aadi aadi ba ƴettee moon aadi pacte pacte bi sax du bu ndaw waaye xaliis mi pacte signature bu dëgër nga wax ñu daal la koy may nga dem waaw lu ñu la wax nga ni mënu ma ko de man mënu ma ko yaa ko waxoon bi nga koy wax ku la sexal suukar ku la sexal lem kenn te yaa waxoon yaa waxoon ne mën nga ko yaa waxoon ne mën nga ko léegi nag comme yaa waxoon mën nga ko lu tax nga dem ba fii di deltu ginnaaw lu tax nga dem ba fii di réccu lu tax nga dem ba fii di di dugg ci ay ay yoo xamante ne xamoon nga ne mënoo moo tax sooy dugg ci sëy waxal li nga mën waxal li nga mën bu ëllëgee ak si biir kenn du la ne yaa ko waxoon darta gën a ñaaw ñu ne wooyu leen diw wooyu leen diw wooyu leen diw wooyu leen ndaw si mu toog ñu wax sa papa ak sa yaay ñu wax say kilifa mu toog ñu wax kilifa ndaw si ñu ne bismillah ndaw si ne la bi nga may takk yaa ne woon da nga may luweel appartement dëgg loolu dëgg nga ne dëgg la yaa ko waxoon kay yaa ne woon da ngay jënd laal nga ni waaw yaa ne lu ñu wax rek nga ni waaw ñu ne waaw léegi nag nga ni waaw c'est que xam nga temps yooyu dama yaakaaroon il paraît alors ma xoolee def doo wax nag wax ju jub de da ngay wër rek te li ci gën a gaaw rek maa ko waxoon waaye nag doo fa nekk ne waaw waaw ne ne ne xam nga xam nga yow li xam nga li nga def jaaduwul xam nga ko yow yaa ko tey te gis ngeen sëy loolu lañ ci yàlla sant mi ngi nii ndaw si dafa bàyyi lépp waxas na min kum misaaqan xaliis dafa jël ci yow charge bu rëy yow yaa ne da nga koy da nga koy jël charge yaa ko wax dañ saay sax muy ndaw soo xam ne da doon def lu nekk dañ ko bàyyi na daa la jox lu ko ëpp mu ñëw nga naan ko non dama seet ne moo ko joxee day bew seet loolu tas kullëri la loolu tas yaakaar la loolu jullit du ko def jullit na wax wax ju leer na wax wax ju jub wax jooju mooy lan lii laa mën ci lii laa mën a dund ak yow soo ma bëggee ci loolu ñëwal waaye amoo kër nga naan da ngay jéem a jëngo jëngo ay appartement appartement Dakar yi ku leen jëngu 2 mois 3 mois 4 mois di nga di nga mere ku la deful dara ku fi nopp xale bu jigéen ba mu gëmloo leen du ma sëyi seen kër da nga may luyel appartement ba nga nopp ko ne ko waaw tey nga dee deux mois lay def ci appartement bi dem yoonam nga xëy ñu indil la huissier ne la fayal am nga fi trois mois appartement facture courant facture SDE téléphone ak dund ah waaw ak ordonnance yi jërëjëf S yi S Senelec Sones Sonatel euh, ordonnance du noonu de pharmacie SI SI day tax nit ñi duñu taxaw de moo tax looy dugg duggal ci loo mën ëllëg ak si biir kenn du la taaj ndaw si du la ne waaw bul diggee bul diggee yàpp te ceeb nekk fi waaw waxal daal man maa ngi nii aw ma dara waaye lépp lu ma am dinañ ko bokk soo ñëwee bëgg naa la ngir yàlla ñu sey ngir yàlla aha loolu leer na waaye yow ñenn ñi dañuy bëgg ba dem sombi lu ñu munta naan sëy yu bëri léegi looloo koy tas parce que ba ngay doxaan waxoo dëgg dangaa liggéey àjjana fekk xam nga ne amoo sax carton boobu boo fanaan amoo ko waaw loolu mooy tas sëy jigéen bi daal di jël addunaam yëpp yëpp ko ci yow ñëw toog 3 mois 6 mois ci mat la lay tudd amul lal mu ne la yow loo waxoon fekk yow da nga ko ne woon lal bi pare na boo ñëwee 3 jours rek ma dem ci ministre bi ñu indi ko nga nekk fa naan ko non ministre bi dafa dawat sama xaalis mu dem laajte ji wëri mu bàyyi ba nga xëy mu wëri ministre bi fu mu nekk ñoo ne ko xam nga diw kooku ne ko man xaw ma ko de dégg naa daal ci koñ bi la dëkk mu ne ah du nee na yow yaa ko doon liggéeyal nga ne yii kooku xaw ma ko ndaw si dank nag kurpeñ boobu di la fanaanal boo ñëwee bala ngay añ day teg rek ne la yow lu tax doo wax dëgg nga ne lan laa def mu ne ana lal bi nga waxoon dem naa ci ministre bi tey gis nga añ boobu doo añ wala boo koy añ ay kudd yu ndaw ngay tibb kudd boo tibb ndox moo koy jàllale yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori mbokk yi loolu mooy dara tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu